Euh, salaamaaleykum wa rahmatulah barakaatu salaatu wa salaam ala rasulillah wa ala man laa nabiya baadi xamdan kasiran tajiban mubarakan fii xii euh, alhamdulilah ñoo ngi sant borom bi taala tabaraka euh, gannaaw bam ñu boole si ñu mu wërsëgal ñu mën a am xelu am lu ñu créé si ndimbalam daal di jëmmal benn affaire gannaaw ba ñu ko nekkee di dajale lu mat huit ans bi ñu commencé léegi muy 2013 ba 2021 bi ñu nekk euh, amoon dëkk idée bi nga xamante ni moom moo nekkoon idée créative euh, depuis moment bi ñu nekkoon di def marchand ambulant amoon rêve boo xamante ni moom moo nekkoon taxawal li nga xamante ni moom mooy suñu salon de thé. donc rêve boobu noonu ñu amoon gannaaw bañ ko jébalee borom bi taalaa tabaaraka mu yombalal ñu ko ba après huit ans d' économie de patience d' endurance de persévérance euh, de sérénité de courage tey mu daal di taxaw. Euh, taxaw boobu nga xamante nii moom la ko borom bi taaraaw tabaaraka def ñu daal di ne dinañ ko jëmmal daal di woote def suñu ouverture def suñu euh, cérémonie euh, de dégustation comme tey ni ngeen ko gisee ñu ubbi place bi def cérémonie de dégustation woo si ñi nga xamante nii ñoom ñoo amoon jot ñëpp ñu ñëw ñam lenn si produit yi nga xamante nii dinañ ko def fii. waaw place bi ñu ngi ko ubbi li jiitu li nga xamante ni moom mooy ubbi bi Euh, wane ni ko ñun ñi nga xamante ni nous sommes des jeunes on peut être des jeunes euh, sans sou euh, soobu si li nga xamante ni moom mooy entrepreneuriat. parce que képp koo xamante nii da nga am loo xamante ni borom bi taaraaw tabaaraka wërsëgal na la ko rek war nga soobu si li nga xamante ni moom mooy entrepreneuriat soit dangay dem liggéey wala nga entreprendre ñun nag borom bi taaraaw tabaaraka dafa dogal bi ñu wër liggéeyee ba am fu ñu toll ñu def li nga xamante ni Euh, defar suñu ataay di wër di jaay donc ñu dem ba borom bi taaraaw tabaaraka defal ñu taw féex euh, am xel boo xamante nii ne lii ñuy wër di jaay nit yi bëgg nañ ko euh, war nañ ko jëmmal utal ko place ba nga xamante nii nit ñi dañuy ñëw foofu duñu si fekk di ko naan donc boo leen xoolee tey place bi li ko tax a jug li ko li ko taxawal c'est des fonds propres mooy awma loo xamante ni aide moo xam mu jugee ci état moo xam mu jóge ci structure yi moo xam mu jugee ci ministère yi wala mu jugee ci fépp fu mu mën ti doon mais man maa ko dajale bi ma commencé liggéey ba fi ma toll nii euh, di huit ans euh, ma mën a jëmmal li nga xamante ni moom laa teg tey lenn rek laa xamante nii tey dugg na fi muy benn cinq cent mille boo xamante nii Marième Faye Sall moom moo ma ko mayoon ma daal di koy jël daal di koy dugal ci li nga xamante nii moom mooy Euh, tey li nga xamante ni moom mooy salon de thé bi. léegi nag salon de thé bi li tax ñu jëmmal ko mooy euh, dañoo bëgg nit yi xam ne kat ñun ay jeunes lañu waaye nous sommes créatifs. te képp koo xamante nii nekk nga africain rek nekk nga koo xamante ni ku créatif nga européens yi lii lañ ñu rawee mooy taxawal taxawal boo xamante ni dafay am sérieux am rigueur am respect am amour si li ngay def donc ñoom dañuy jëmmal li ñuy jëmmal euh, souvent lu ndaw lay commencé ba dem lu mag tey ñun foofu la ñu foofu la ñu toll tey bi ñuy commencé lu ndaw la woon tey ñëw nañ ba dem si lu mag boo xoolee ñun dañoo am benn slogan boo xamante ni moom mooy commencé petit rêver grand tey ñi may suivre yëpp xam nañ ne fi ma commencé mooy jaay ay ataaya boo xamante ni dama doon wër di jaay kaas fukki dërëm boo ku xool samay interview ak samay reportage dina ko xam donc doon jaay ataaya kaas fukki dërëm ba tey demal li nga xamante ni moom mooy salon de loolu dafay firndeel ni liggéey am na si dëkk bi liggéey boobee nag nit ki moom du ko am mukk lu dul desee sóobu dimbali ko si borom bi taala tabarak parce que tey bu ma doon xaar ko taxawal kon tey damay ñaax ñi nga xamante ni ñoom ñoo taxaw di xaar financement moo xam di naan dëkk bi amul liggéey war di ko xaar si état que ni on aller sans l' état peut être état moom mun na ñëw après dooleel ñu wala yóbbuñu mais tey bu ñu toogee di xaar état mën nañ bañ a dem parce que état li ko war dafa bëri te li ko war yëpp defu ko donc ñu ñëpp xam nañ loolu moo tax ku si nekk dangay ngay góorgóorlu nga entreprendre commencer petit rêver grand avoir une belle patience pour une très belle euh, pour une très belle récompense man damay wax ne wutum xëy sosum xëy moo ko gën kon képp koo xamante ni yaa ngi si di wut xëy war a am am ay capacité am moyen sos xëy nga sos ko loolu moom mooy li gën léegi salon bi nag ñu ngi ko jëmmal parce que tur bi dafa yegg foo xamante ne nii jëmm ji yeggu fa produit bi dafa yegg foo xamante ni jëmm ji yegg fa donc comme ñun dañu doon arrêté woon jaay di marchand ambulant depuis 2017 2017 ba 2021 si bouteille la ñuy jaay 1 litre 50 nit yi di dégg tee bi bëgg ko ñam donc fekk amoon nañu li nga xamante ni moom mooy yéene taxawal salon de thé bi te yàlla yombalal ñu ba ñu taxawal ko boobu mooy ñu permettre nit ñi ñuy mën a ñëw si salon bi di mën a naan di mën a naan tamit wane ni liggéey am na si dëkk bi créer de l' emploi ñi nga xamante ni ñu ngi dëgg docteur Chaye à travers euh, l'Europe Euh, l'Afrique l'Asie et fu mu mënti doon bés bu ñu ñëwee Sénégal dinañ xam mun nañu fekk fii docteur Saye ñu dem naan li nga xamante ni moom mooy ay produits am. salon bi li ko tax a jóg c'est vrai c'est des c'est nos c'est de base produit de base c'est-à-dire Tawsikhir Enshay Tawsikhir 4G plus Enshay naturel c'est nos produits de base léegi am na yeneen produits yoo xamante ni créé nañ ko mais mënuñu ko woon génnee salon bi la doon xaar kon euh, salon bi dina am meew bi nga xamante nii moom la ñun ñëpp di dégg euh, te mësuñu koo ñam donc euh, loolu dina leen permettre tey bu dul foire yi ñu mën a ñëw ci salon bi mën fi naan li nga xamante ne nii moom mooy meew bi. léegi salon bi euh, dina am li nga xamante ne nii parce que boo leen xoolee maa ngi ko tuddee restaurant traiteur euh, restaurant traiteur after work salon de thé. donc au fur mesure ñuy dem dafay nekkaale restaurant mën a nekk fast food en même temps mais comme les moyens de d'aujourd'hui sont très minimes. donc damaa commencé ak li nga xamante ni mooy sama base mooy tee bi donc di si fortaatu ba di dajale ba keroog may koy ma si mën a yokk leneen ma yokk ko si mais fu mu toll nii base bi moom mooy kon ku fi ñëw di nga mën a naan chaay di nga mën a naan caw saxi 4G plus di nga mën a naan meew euh, dinaa defar tamit ataay bisaab blanc dinaa defar aussi ataay bu ru euh, bisaab rouge dinaa defar aussi li nga xamante ni moom mooy euh, miel ak citron plus miel dina am aussi li nga xamante nii moom mooy chocolat chaud Euh, dina am li nga xamante nii aussi moom mooy café noir dina am café machine dina am café capsule dina am donc dinañ ko boole ax ay amis bouche dina am beignet dina am sucré ak sale dana am aussi popcorn euh, dina am aussi crêpe dina am aussi yeneen ak yeneen ak yeneen donc ku dellu si page bi ak affiche yi ñu publier di nga ko gis foofu noonu donc boo ñëwee dinga ko mën a am aussi aussi salon bi aussi dañ ko créer aussi Euh, ubbil nit ñi opportunité yi nga xamante nii tey da ngay gis koo xamante ni dafay nekk bureau wala mu nekk service nga xamante ni dafay am liggéey bu muy mën a def bu bu mu bëgg def peut-être bu toogee si kër ga du ko mën a du ko mën a def parce que xale yi dañ koy perturber wala nit yi bu boobaa dina mën a gàddu ordinateur am bu ñëwee si salon bi dina fi fekk wifi am na caméra de surveillance mu mën a toog mën a def liggéeyam boolewaale ko ak li nga xamante ni moom mooy ataaya ak amis buus yi xam nga loolu dèjà yaa ngi dimbali koo xamante nii tey dina bëgg liggéey liggéey bi muy bëgg liggéey dafay bëgg toog foo xamante ni kenn du ko perturber après mu mën a toog liggéey ko tranquille salon bi aussi dina nekk euh, au profit de ñi nga xamante nii tey dañuy bëgg def ay after work dañuy def euh, rencontre wala réunion wala séminaire donc bu ñu ñëwee tey docteur Sy mën na leen louer salon bi louer leen prestation de service su ko defee ñu mën a toog def seen réunion wala def seen euh, li nga xamante ni moom mooy conférence wala def li nga xamante ni moom mooy seen rencontre moo xam ñu nekk ay anciens camarades de classe wala ñu bokkoon euh, école wala ñu bokk bureau mën a ñëw def seen daje donc loolu yëpp ay opportunités yoo yoo xamante ni docteur Chaye ubbi na ko pour mettre à à la portée des gens qui en auront besoin. donc ñii nekk Europe tamit dinañ am opportunité bu ñu ñëwee découverte découvrir xam ne dëkk bi am na liggéey te jeunes yi bu ñu gëmee seen bopp ñu toog si dëkk bi mën nañ liggéey créer comme docteur Chaye donc exemple mi ngi nii macha allah. Ah, salon bi nag mi ngi nekk Castor Castor fi mu nekk dañ koy wax cité GIA dañ koy wax cité soleil mais lii gën a yomb mooy euh, Castor si même immeuble bi nga xamante nii foofu la jàkk ibaadu yi nekk donc am na nit ki am na plusieurs opportunités pour ñëw dugg fi ku jugee Liberté 6 am na yoon bu koy indi ba si salon bi ku dugg ku jugee fële Camp Leclerc am na yoon bu koy indi ku duggee Sodida aussi am na yoon bu koy indi donc am na plus quatre koñ yoo xamante ni ku fa jaar rek day ñëw si salon bi ku ñëw ba Kastoor Pàkk Naajo wala nga ñëw booru Sodida wala pharmacie Ibrahima Niass wala Camp Leclerc donc foo laaj jàkk ibaadu yi dinañ la ko wax boo ñëwee dina gis enseigne yi nga xamante ni moo lay firndeel ni fii moom mooy kii bi léegi nag salon bi aussi day nekkaale suñu base pour bouteilles yu ñuy jaay ñi nga xamante nii dañuy jënd bouteilles léegi au ñuy ñëw sama kër dootu ñu ñëwti sama kër dañuy ñëw si salon bi bu ñu fi ñëwee dinañ ko fi fekk gannaaw bi ñu passé commande am na ay rencontre yoo xamante nii aussi nit ki bu wootee mu passé commande a préparer bi ni mu ko bëggee ak li mu bëgg commander pour mu ko popcorn day am gerte suukar gerte kemb ax lépp loo xamante nii daal nit ki dina ko mën a accompagner ak tee bi comme niñ ko gisee woon si vidéo bi incha allah bi sax dañ si yokk li nga xamante ni moom mooy organisation par exemple am naa sama équipe boo xamante nii képp ku xewle bëgg ma gérer la sa organisation en même temps ma defal la euh, prestation de service docteur Chaye na nekk aussi donc loolu dañ koy continuer ba léegi donc looloo tax ñu tuddee ko restaurant traiteur docteur Chaye donc dañuy continuer di def prestation de service yi dans les cérémonies ba léegi loolu moom si suñu liggéey la bokk macha allah si yonent bi alayhi salaatu wasalaam di sant borom bi taalaa tabaaraka ndax euh, ñoom ñaar ñoo si gën a yey ndax bu dul woon ndimbalu yàlla ak euh, yërmande yàlla ax li nga xamante nii moom mooy li yàlla namm si ñun munoon bu ko neexoon munoon na bañ suñu woote. kon comme wuyu ko dañuy sant borom bi taalaa tabaaraka bu baax di sant aussi ñëpp ñoo xamante ni jàppale nañ ma si li nga xamante ne ni moom moo nekkoon euh, liggéey bi donte metti woon na trop ku si mel ni benn jëmm bu may waaj a tudd mi ngi tudd Ousin Euh, Ousin vraiment daf ma jàppale bu baax si salon bi ndax dañoo bokk koñ. Euh, séq lu rafet vraiment bu mu yëgee ni maa ngi waaj ubbi salon dafa ñëw jël li nga xamante nii moom mooy xam-xamam jël temps jël lépp daal di ma koy jàppalee donc lépp loo xamante nii taxaw na si salon bi man xaalis rek laa jénnee damaa financé mais moom moo yoroon liggéey bi yëpp donc kooku dama koy sant bu baax mi ngi tudd Ousin di sàkku ñëpp ñu ñaanal ma ko beneen bi si topp tamit sant di ko gërëm mi ngi fii nii mais du ma mën a wax si moom lu bëri parce que bu ma waxee rek sama xool day tooy daal mais sama yaay ak sama papa tamit maa ngi leen sant bu baax samay soxna aussi euh, jàppale nañ ma bu baax ak ñëpp ñoo xamante nii maa ngi àndax ñoom ku lim da ngay juub dama am groupe boo xam ne dama ko tuddee woon conseil et suggestion donc ñoom ñi si nekk ñëpp jarul may lim seen tur dinañ xam seen bopp jàppale nañ ma bu baax parce que dama leen woon si groupe bi bi ma waree ubbi affaire bi depuis août donc ma leen di dugal ñu may wax seeni xalaat di ma orienté wax ma li may def et donc ñoom tamit maa ngi leen di sant di leen gërëm di sant ñi si jàpp ñëpp vraiment.